Dans la mesure ou làmb njaboot la famille la ñëpp bokk ñëpp bokk baay kon na lépp rafet woo nañ nu fan yi waxoon ñu tey ñu indi suñu proposition te loolu mësul am kon ministre bi mënoon na jël ay responsabilités mais pour man dañ doon tester monde làmb pour xool est-ce que ñoom benn lañu est-ce que ñoo bokk benn yoon malheureusement ci 72 heures yi lu bari xew na ci lu bari wax nañ ko fi lu bari def nañ ko fi te amul solo. li am solo mooy ñi yor làmb nañ leen gestu yéen pourquoi vous êtes là parce que bu dul woon làmb investissement bi ngeen def am seen ay outils ay support doo leen ko def kon làmb am na njariñ chaque semaine mercredi jeudi samedi dimanche mën nañ ci yokk sax mardi lu mu dee dee deux cent lutteurs wala cent et quelques lutteurs dinañ ci bëri kon loolu kenn waru ko fooye kenn waru ko caaxaane j'en déduis ne nit ñi ànd ak seen xel delloo si seen xel bokk ndey bokk baay ku ñu fi mën a indi na jariñ làmb waxtaan ak njabootu làmb ñu bokk xel bokk xalaat bokk jëmukaay pour l'intérêt général de la lutte yeneen li ci des yëpp amul njariñ te jëmewuñu fenn maay diw ak maa mën li ak maay nangam ak nangam amul solo te loolu du loolu mooy jariñ làmb kenn gëmmu fi kenn nelaw fi ñëpp xam nañu ku nekk li nga mën ak la nga capable du dëgg loolu daal laa amoon ci lu may wax di ñaan yàlla defal ñu jàmm ba lii jàll ñu ànd nekkaat ci liggéey bi ba ñu yaakaar ci làmb muy mbër yeeg euh, amateur yeeg manager yeeg commerçant yeeg reporter yi yëpp nga xam ni ñëpp ñu ciy jariñoo yàlla def ñu continuer seen liggéey pour l'intérêt général de la lutte man loolu la am ci lu muy non li nekk ci biir du dara lu dul dañuy déposer candidature dañu lay woo cabinet deuxième étage yàlla y a cabinet qui est donc ñetti nit lañu ñetti directeur lañ nga daal di toog joxe sa dépôt défendre say argument wax lan mooy doon sa motivation et loolu aussi sa permettre ak ñi nga xam ni ñoo lay déglu ñu xam ñoom itam kan ki bind lii kan la lan mooy ay motivation ak fan la bëgg la fan la ba ak lan mooy sookulu décision loolu rek la mais daal boo leen bëggee dëgg-dëgg làmb ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nañu leen dal ànd ak suñu sago rafetal moytu ñuy jaxase biir làmb parce que y des gens qui divisent pour régner et cela n'a aucun sens pour l'intérêt de la lutte nañu leen defaraat toogaay yi taxawaay yi soxlawul ñu naan leen diw mooy diw yéen ñii bis ne yéen làmb pël dañ la mën a wax làmb dembale yow soxna dañ leen mën a wax kan moo nekk xalit mais lu ne fekk na leen fi lu nekk xew na fi ci seen kanam kon ku leen mën a laaj làmb sax war ngeen mën a tontu balaa promoteur yeeg mbër yi di dikk waaw yàlla na non ça ça a réglé parce que loolu jaaduwut Malick bu dikkee dañ ko war a bàyyi mu dugg mu jël place personnellement dem nañu ci kaw wax nañu ko wax nañu Mouhamed mu wàcc ñu ñoo wàccandoo ñu ñëw nee ko duggal parce que loolu moo jaadu moo rafet Malick ci làmb la bokk comme Dembélé ak Pël ak keneen ak keneen ni ñu bokkee ci làmb nañu leen rafetal lépp du dëgg parce que Sénégal moo ñu ñor un département moo ñu ñor muy làmb

mais man mënu ma nommer à la place du ministre yow mënoo ko keneen mënoo ko li am solo mooy bu làmb taxaw na làmb avancé nañu seet nuñ ko mën a améliorer conjuguer suñu ay effort làmb moo ciy gagné daal man awma choix ci lenn xam nga lu ma ñor ah nan lépp dox rek waaw te ñu man daal xamul lu ma bañ lu xotti ku wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw amul solo ay nit dañuy silwisi man loolu laa wax mais ku fi mën a toog na woo njabootu làmb ku nekk association yu bari na ku nekk mu déglu la tirer ay conclusion et puis làmb jariñoo ko Sénégal jëm kanam. mais Pape Abdou par rapport ak at yi nii gis nañu da nga def benn recul depuis ci Siteu bi nga ko mujjee dëgg yaakaar naa moom Papa Sow euh, Pape Abdou Fall dafa def benn recul te ñu nga bokk ci promoteurs yi nga xam ne ay ténor ci wàllu làmb lan moo war a recul bi dafa gisatul lu ko neex ci acteuru làmb wala ñu jiite làmb wala doxalinu làmb moo ko neexatul ba euh, euh, dafa naa ni suma dernier combat def naa ni Zarko Ada Fass Zarko ah. Ada Fass depuis lors euh, ñëpp xam nañ ni j'ai une nouvelle fonction boo xam ni mayuma jot jël yenn millions yi di ko dugal ci làmb te aw ma taxawaay boobu parce que nag am na loo xam ni boo ko defee lu la ca dal yow incha allah ñu ngi ci làmb c'est pas pour rien que ñu teew fi parce que làmb moo ñu yor làmb moo nekk ci suñu xol te làmb duñ ko bëggu te itam lu mu dee dee it am na luñ fi def incha allah bu ñu xawee oyof tuuti rek ba mën a défendre suñu ay investissement mën ko taxaw incha allah danañu dikk. na ngeen yendu noonu wadd wadd ma sooy père ñu ngi lay fay. sant nañu bu baax. loo jëlee ci biir. Euh, onze bi kalimaati laay taamaati min sharri maa ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci bàyyi lay ak Seydi ñu ngi nuyu internet yëpp. leen wax ni tey jii li fi am en tout cas musul am. Hmm? musul am parce que bu njëkk ba ministre daan woote rek ni fal naa tel. te nag indi na beneen système. waaw système bi nag liñ ci ragal. mooy mu indi division ci biir làmb ñii jëm côté bële ñooy jëm côté bii te làmb ñoom waaw waaye nag xam nga même ba léegi rek defaroo xaj nit ndax mën nañoo xëccoo fii kenn ku ne gisoon na fii président Diomaye ak Sonko lu ne xew na fi mais tey jii moom la ñoom la yàlla def ñu ne ci kanam te nit ñi doon xuloo di sànni xeer kenn defatu ko eh. kon làmb aussi mën na demaat noonu parce que rien n'est trop li war a am mooy ñu nekk benn groupe bu solidaire di liggéey li fi nekk nag mooy ñun suñu fi toogee di xëccoo ba keneen ku falu ñuy defaat la même chose kon kenn du fi toog il faut ñu nekk ay nit yu homogène ay nit yu nekk benn bloc di liggéey pour la promotion de la lutte. Hmm, yow changement wala da nga bëgg ñu renouveler. non changement mënut ñàkk yaa ngi dégg mais bëgguma ko léegi nii nii nii. li tax parce que dañoo engagé wu ci loo xam ni kenn ku nekk yaa ngi woon ci journée d'information bi ñu wax bilan ba fa am yaa ngi woon ci atelier yi man ak euh, Gakou ak Agogo ak Aliou Ba ñun ñeent dong ñoo doon défendre làmb ba li ñu wàññeek li ñu defaraat yëpp. ñun ñooñ ñoo ko doon défendre lenn rek lañ ci amul mooy sortie délibérée la ñu bëggoon ñu delloo siwaat ko ñoom ñu nit sortie tout court la ñuy def mais lu jëm ci li jëm ci li jëm ci euh, ci cadre li jëm ci cadre xale yi nga xam ni lan li nga xam ni vingt cinq vingt cinq mille lañ ko doon def pour mbër yëpp léegi nag lan la man nekkuma fi du pour ñu may laaj le rôle du manager le rôle du manager loolu du question yu may war a wax non il faut ñu am yar ak teggin fii li fi ne nii man kenn forcé wu ma ma wax man maay wax pour la promotion de la lutte kon nag taxaw fooy di wax am ngeen droit wax lu leen neex mais dama ni bu fekkee ni par exemple dañ leen a woo kaay leen ngeen ñëw ñu waxtaan ñëwuloo ñu wax la ni la kaay ci toilettage de textes ñëwuloo kon yow bugguloo la réussite de la li war a am mooy da ngeen di ñëw toog ci atelier yi lu leen neex ngeen wax ko ñu changé ko mais du caagenu par exemple ngay ñëw toog ba mu neex la rek ngay ñëw ne voilà kii na fi jóg na nekkee dañ ñëw loolu amul fenn. waaw mais man waxuma waxu Macky Sall man waxu làmb laay wax. Ah, non non non man duma waxu Macky Sall waxu làmb wax li ngeen may laaj li tax ma koy wax dama ne je serai toujours cohérent hmm. yaa nga dégg hmm. te je serai constant. quoi parce que li ma gis loolu moo ma doy moo tax ma di ko wax yaa ngi dégg hmm. dama lay wax rek. li nga xam ni moom moo fi nekk mooy li ngeen ma laaj tontu naa leen ci amul ah, leen la may waxati pour le moment bëgguma ko parce que seen bilan dafa positif waaw. mais mais mais à vrai dire për ñu bëri dañ ni ñoom moment bi ñu toll nii changement la ñu bëgg comme ni ko président de la république. Diomaye waaw léegi nekk seen poste ñu jékki-jékki rek dañ lay changé sans raison. Ah. bu ñu la waree changé day fekk yow liggéey liggéey ca liggéey ba baaxul. non bu leen man man man ngeen di wax waxal nañ waxante mais bu leen ni ñoom ñoom duma leen tontu man yéen laay waxal waaw waaw bu ñu fi dajee li ñu war a wax rek da ngeen may laaj li nga xam ne mooy sama xalaat ma wax leen ko mais su ngeen ma bëggee dugal ci beneen domaine duma ci yegg man dama ne je toujours constant li may wax ci loolu laay wax dama gis benn bilan bu positif ci activité ak financier ma ànd ak loolu parce que boo ma waxee ñaata médaille lañu am li ñu def ci simple mise yeeg même valeur yi yëpp nga wax ñu ko wax ñu li am ci lutte avec frappe ñu xool nu gis ne que baax na damay wax ne baax na su ma gisee leneen loolu tamit ma wax leneen waaw